asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, Mouhamed basir ñu xamoon ko ci David François David Diagne dugg ci lislaam ginnaaw bi nga xamante ni Serigne Touba da ko feeñu léegi François David nga xamante ni ñu ngi la tuddee tey Mouhamed Bassir Diagne dañoo bëggoon nga leeralal ñu tuuti rek ci sa tuub ci nu gàtt rek ni la Serigne Touba feeñoo ak ni nga duggee ci lislaam ak lan moo la indi ci lislaam dëgg-dëgg ginnaaw boo xamante ne bokkoon nga ci kilifa yi catholique yi yilifoon Kédougou waaw ñu nga leeralal ñu ci rek te ñëw fii ci njaareem tuube fi tey jii. waaw sant yàlla bu baax rek eh, di leen nuy yéen ñëpp di leen ndokkeel yéen ñëpp ah man moom eh, si diine christianisme laa nekkoon doon ci aussi njiit mais yàlla def nag eh, sëñ Touba laa gis ci ma nekk ci mbugal gu metti ci àllaaxira ca safara desu lu dul dugal ma safara rek si la ma teyee ni ma man lépp lu bokk ci man du lakk ah depuis boobu noonu ba tey nag wax dëgg yàlla tey ñëw naa ba dugg ci diine lislaam tey euh, euh, mooy altine altine le neuf mois deux mille vingt deux waaw ah, nekk na bis naka tey jullit nekk tamit taalibe Serigne Touba. tuube ci jumaa njaare tuube ci jumaa la dëgg la waaw kontaan naa bu baax a baax maa ngi sant yéen ñëpp. Eh, wax nga itam ci biir wax sànq nga ne gént nga Seydina Muhammad di la jox meew ci biir Kaaba ga te mosoo dem Makka. waaw ah, boobu moo njëkk boobu moo njëkk parce que eh, dama doon toog di laaj ci yàlla sunu borom ñaaru diine yi parce que musulman yi dañuy wax ñoom ñoo le catholique yi wax ñoom baax le ñeneen ak ñeneen man nag comme que ci catholique la bokkoon ma ñaan yàlla sunu borom ne que dama bëgg wax ma dëgg bi fu mu nekk ñaar fan lañ ci teg si la gént Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa ma toog ak moom ci kaaba gi nii moom ak keneen bu may jox meew may naan tool loolu moom am na. kon daal eh, Mouhamed Bassir Diagne. tuddoon François Diagne nekkoon e wala boog kilifag ak eh, ñi yilif eh, région Kédougou yëpp moo yilifoon labbe yi kon daal ni moo la indi ci lislaam